groupe sopp Farokh TV jar na seen liggéey rafet na yàlla na jëm kanam ku am gàmmu woo ko walla conférence walla ab siyaara sa bis jëm kanam alhamdulillahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala nabil وآله وصحبه صرفا ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الصفا أما بعد موكي جروب سابو فاروخ محمد المتبا دل سيادنا تي كاتنو يالله دي نيوا جروب ياب di jiital suñu nuyoo ak suñu siyaara ci njaboot suñu wandaw gi nekk ci biir groupe bi yëpp mel ni Cheikh na Ahmad Tidiane Ndaw Cheikh Mahamadou Hamid ibnu Seydi Makiyu ak mboolem njaboot gi ñi nga xam ne ñu ngi ci biir group Samp Farokh di nuyu suñuy mbokki taalibe yi waa biir réew ak waa bitim réew yëpp ci tënk ñu jël suñu nuyoo jox ko suñu xarit suñu soppi Seydi Amar Cissé mu joxal ko mbokk yow nuyu borom xam-xam yi nekk ci biir groupe bi yëpp Seydina Omar Farouk Seydi Ibrahima Dramé Seydi Ibrahima Touré mboolem koo xam ne yaa ngi ci biir groupe bi rek nayu nañ la bu baax siyaare la ko defee ñu del siyaat ci kàttanu yàlla di jéggalu bu baax di baalu ñëpp xaq di xaq ci événement yi nga xam ne génnee nañ génnee nañ ci te muy événement wu jullit ñu ngi ci siyaare ñëpp di saafwante ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di saako si ci ñëpp ñu ñaanal jàmm ñu del ci aat fas yéen àndaat yéen li nga xam ne dëlante woon nañ ko muy siratu nabi alayhi salaatu wasalaam muy jaar jaaru yonente bi del siyaat àndaat ak ci bis bis bu sell bii nga xam ne mooy bisu Seydina Muhammad di bisu altine comme na ma ko daan faral di waxee bis la boo xam ne lépp yonente bi altine la groupe bii de group Sopp Farokh ñu bëgg it altine gune rek ñu jaare la fi ci siratu nabi alayhi salaatu wasalaam di wax na li ñu téyewoon daal mooy tool yi yàlla matal na ko ci kàttanam ñuy ndéganu rek ñu yeggalee jàmm yal yàlla ma ñu kàttan ñu fekke lépp kon daal ci tënk gàttal daal ñu del si xaat fas yéen a àndaat ak yéen nañ daan ànd yéen ci bis bis bu sell bii di bisu altine ñu àndoon yéen ci leer ga fa ko yàlla bindee ak la ca aaju xisse yaag la ci sëñ na wax ñu àndoon ak ca fa leer ga duggee ca Aminata ak Abdallah ba leer gi mujj a génn comme ni ko Sidi El Hadj Manda waxee ca lawlul makkunoon ñu ànd ak yéen ci loola di dem ba yonent salaam ni mu juddoo comme ni ko sëriñ bi nettalee ñu ko doon tafsiree noona ca téere boobu ñuy wax lawlul makkunoon di téré bu yéme di téré maulana Cheikh Sidi Hadji Omar Ndaw boole ko ay qissa yu yaa ñu àndoon ci ban wér lañ ko ëmm ak ban wér la juddo bis bo ak sallallahu salaay wasallam ni mu maggé di dem ak yeen sax ci ay atam ak ay rama mak ay taxawayam ànd ak yeen ba yonent salaay salaam ni mu amé ñeen fukki hat laata ñeen fukki hat lam daan gis ak yonent salaay salaam ban diine ci la nekkoon laata ñu koy jox diinam ji di diine islaam loolu yëpp àndoon nañ ci yéen ci siratu nabi alayhi salaatu ci biir bis bu sell bi di wax ne dem ak yéen it ba ci wax it yonente bi wax ak yéen it ban barab ca lañ daan jullee wax ak yéen it nanaan nañ daan jaamoo yàlla wax ak yéen it tuubab Ababacar ak Sidina Omar ak Ousmane Aliyu ñooñu nan lañu duggee ci diina loolu it nañ ko wax ak yéen it dee ci yonente bi ak ay soxnaam tey rek ñu bëgg a ànd ak yéen ca fañ suba ci tënk la gàttal muy yonente bi salaay salaam nan la rañaane ak fan la rañaane kon foofu lañ war a dalee ak yéen groupe Sopp Faalo su ko defee foofu lañ tënkoon darsu bi bala may ànd ak yéen ci isra wal mihraj yow ma daan déglu waxoon naa leen saaba yonent bi salaam ñen ñoo ci njëkk gëm wax leen ba wax leen Seydina Omar ibnul Xataab nan la tuubi ak lan moo sabab tuubam gi wax leen it ñañ daan doya dal ci ñooñ yonent bi salaay salaam dégg de te doy diwuñ ku mel ni ki bilaal ku mel ni ki yaasir ak waa këram moo xam soxnam saak njabootam ga ak ñi nga xam ne ñoo gënoon a tar mbugal ci ñun yonent bi ak yonent bi ku mel ni aboo jaxli ak aboo lahaab nga xam ne bàyyi taxam la waxoon naa la ñoo ñëpp seeni tur ma àndoon ak yéen ci yéen salaay sallam gannaaw ba xis yooyu jeexee ak pexel gañ ko pexelewoon ci daaru najwa yonent bi salaay sallam ma wax leen it sallallahu alayhi wa sallam dégg nga de nii noonu meloon ci kawam wax leen it ba mu demee ci nijaayam ya ak gàddaayam yooyu mu def ñii dem Éthiopie ak dégg nga ba mu xaajee genn wàll ga dem ci nijaayam ya lam fa jëlee loolu yëpp waxoon naa leen ko yéen ñi doon déglu tey nag ñu fas yéene ànd ak yéen ci isra wal mi'raj lan moo sabab ñu ràñaane yonent salaay sallam ak it yonent bi sallallahu ñaata at la am ñu ràñaanee ko ràñaanee gi bari coow lool ñii ne dafa deme jëmm ñii ne déedéet rooxu rekk la demee waaye demeewul jëmm alquran àtte nañu suñ demee ba ci kanam rek lépp dina leer yonent bi salaay salaam dégg nga de rañaanee nañ ko rañaan nag suñ ko waxee mooy dox guddi rañaan gi suñ ko waxee mooy jógee na màkkatul mukarama rañaan gi suñ ko waxee mooy jëm na baytul muqaddis jógee màkk jëm baytul muqaddis yonent bi salaay salaam suñ waxee mixraaj mooy bam jógee baytul muqaddis yalla yóbbu ko da ko yóbbu ba fam ko neex wala fam ko sok mom yalla wallahu taala a'lam yeenante bi ali salatu wassalam ñak muy gaday di dem Medina ci lañ ko rañane bobu yeenante bi salaay sallam gi amna na ak ñaar soko ko ci ñen fukki ya mu jox la juroom fukki ak ñaar ca ñettel ba ci la yonente bi salaay dem Madinatu nawara kon nak yonente bi sallallahu alaihi wasallam sallam nañ ko ci fukki atam ak ñaar ci ba nga xam risalam gi makna na bi alayhi salaatu wasalaam comme fukki at ak ñaar ci risalam gi ci lañ ko rañaane soo xoolee dal dina la jox juroom fukki at ak ñaar ci dundum ci lañ rañaane yonente bi alayhi salaatu wasalaam rañaan gi nag am na ixtilaaf ci weeram yi ñii dañ ne weeru gàmmu lañ ko rañaanee ñii ne weeru rajab lañ ko rañaanee mooy na koor waaye la gën a siiw mooy weeru rajab ca bindam oxlu shiri ñii ne weeru gàmmu la ba tey wax nañ ne ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñaar la wax nañ ne bis bi bisu altine la ba tey ñu wax ne weeru rajab la ñoo dëppoo ci ñaar fukki fan ya ak juróom-ñaar ya ñoo dëppoo ci bisu yonent bi bis bi nga xam ne mooy bisam bi te mooy bisu altine wax nañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam rajaanam bi daal ruuxu rek la demee am na ñu wax loolu soo lii téere hadis yi na Aysa soloo na ci lu bari am na ñu ne déedéet lépp yonent gi moo dem alquran nee nañu subhaanallazi asra bi abdihi laylan nee na yonent salaay salaam borom asamaan si ak borom suuf si moo ko rañaanee lan la rañaanee mu ne bi xabdihi xabdihi nag su ko waxee ruuxu ca la bokk su waxee xabdihi ba tey jëmm ji ca la bokk moo demee ci téere mu fasiri tafsirkat yi ñoom liñ lay wax daal xabdihi daal léppam la ñoom nangu nañu yonent bi lépp moo dem loolu nag laylan ci guddi la xam fan la woon mu ne minal masjidil haram ilal masjidil aqsa yonent salaay salaam dafa bayeekoo ci jàkk ju ñu xormal ji nga xam ne moo nekk màkkatul mu karama jëm ca jàkk ju sori ja nga xam ne xormaloon nañ ko taggan koy xormal muy jàkk jooja nga xam ne mooy dégg nga baytul muqaddas yow mi nga xam ne yaay dégg nga yaay yaay déglu te bëgg lu la leer bu baax a baax dellul ci sootul isra da nga wax yàlla jooja da leeral ne la fii barak naa awlu xoo li min ayatina innahu huwa samiul bashir waaye yonent salaay salaam rañaanee nañ ko ci diggante asamaaw ak suuf ñu nekkoon ci ay xuloo suuf di fugariw ci kaw asamaaw asamaaw yi di jaay daraja suuf loola wax nañ ne moo sabab rañaan ak yonent salaay salaam loolu nag ki ko wax mooy tuddoo Xusmaan bun Xasan dégg nga de aljawbiriyu koku neena li sabab rañam yonente bi ak mihraj ji lolu mu ngi nek ci denga de fuguru su ci kaw asamaaw lolu mo sabab ñu rañane yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon yow mi doon deglu ju bay ko fofu allah bu benen al cinema and ak yow ci baytu Sidi El Hadji Ndaw bi nga xamne ne nañu rañan gi ñep ca waxam je ca yawaaqitu sahaba ne tabalara di asamaawi dal di tontu suuf ne ko ana xayru min kii yow suuf yow it la gën daal ne an na fiya samsu wal xamara wal kawaakiba wal xayri xaa asamaa it wax suuf ne ko yow la gën ndax nekk na sama kaw jant bi ak weer wi ak biddew yi ak yeneen yu ma manti leen suuf waxaat ne ko dégg nga de la gën ndax nekk na sama kaw nee boo xamante ni dañ ko siyaara xat mu ne nee boobu ñi koy wër ay anbiyaahu lañ ay mursalañ koy wër ay waliw laay ñu ngi koy wër te at mu jot ñu ko siyaara te siyaara goo nekk wareef loo xam ne farata la kon it yow it maa ndax suuf daf na ko fii al baytul dégg nga de yasuruhu wa yatoof bihi anbiyaa wal mursaliin wal awliyaa ne ko gën ndax de nga sama kaw yàlla ci def benn ni boo xam ne nabiyullahi ak musali ak wali yi ñu ngi koy wër at mu lu nekk farata ci ñoom wa dal di tontu momit tontu waa suuf ne ko fiya al baytul mahmur am nga neek waaye man am naa neek bi ñuy wax baytul ci kaw la nekk ne ko yottofu bihi kullu yawmin alfa malakin man am na ne boo xam ne mu ngi ci sama kaw bépp bis daal juróom-ñaar fukki junni ci ay malaaka dañ ko wër wa fiya jannatun asamaaw ne ko dégg nga de ne boobu de juróom-ñaar fukki junne malaaka dañ ko wër sept jours ba tey sama kaw man asamaaw ci la aljana ne wa jamanihim mboolem xéwali rek ñun sama kaw man asamaaw wa qaalatil ardu suuf moom it daal di ne ko inna saydi mursalina wal anbiyaahi wal abibi rabbil alamina na fiiha wa ajra sarihatuhu su ko defee suuf moom it ci boppam dal di waxaat asamaan ko déedéet gënoo ma maa la gën ndax ki nga xam ne mooy sangi yónnente yi mooy sangi ñi nga xam ne fañ lan solo mooy soppib yàlla bi ki nga xam ne day mooy seydil wara mooy seydil xaw mi kooku day sama kaw la dëkk man suuf sharia bi ñu jox auto mo gën ci sharia yi te kooku mo tax ñu bind la ko auto mo bind la bind sharia sama kaw la ko jaarale asamahu dégg nga de daldi joy jooy nga de daldi lottu ci la nga xamne ne la wara tontu suuf na asamahu xamul lolu su ko defé asamahu daldi jublu jëm ci yalla fa qalat mom asamahu ya ilahi, ya ilahi de na yow sama yalla mi yalla na lo xaw asamaaw dal di tontu yàlla na ko ajastu an ijabatihil ardi man de dama lottu ca tontu bi nga xam ne war naa ko tontu suuf ma lan laa ko tontu yàlla na ko lu xew asamaaw ci boppam dal di nettali xissa bi na ko deey nekk na dégg nga dama doon wax ak moom suuf ne moom a gën ma wax ak moom ñu waxante mu ne def nga ci moom ay dëkk def nga ci moom ay géej def nga ci moom ay yolnge def nga ci moom ay garab def nga ci moom it ay doj dégg nga di ak yeneen mu wëlbatiku wax na ko man it ma ne ko maa gën a def nga ci man ay janta def nga ci man ay weer ak ay biddew def nga ci man ak yeneen suuf it waxaan ma ne moomu gën ndax def nga ci moom baytulaay mu sarraf man it ma ne ko maa la gën ndax def nga ci man baytul maxmuur ñu waxante nag mu tëkkuma wan ma ne ma nabiyoog anbiyaaw yi de ñu ngi wër nee man it ma wan ko ne ko ay malaaka chaque jour juróom-ñaar fukki junni malaaka ñu ngi wër sama kaw ci nee nekk ci sama kaw aljana sama kaw la nekk man asama moo ko loolu suufit wëlbatiku ne ah ki nga xam ne mooy seydi mursalina wal anbiyaay wal abibi rabbil alamina watt na fii ya dégg nga de wa hajjara man de xamatuma lu ma ko tontu ndax man asamaaw awma te suuf kooko ñu bind ko man asamaa kooko tax ñu bind ma te yow yàlla yaane lépp loo bind kooko tax ñu bind ko te man asamaaw awma loolu loolu de laa lott ci tontu ko su ko aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani alhamdulillahi wa kafa wasalaatu wasalaamu nabil mustafa wa alihi wa sahbihi sun ci jamono bi te mu upp lol ci waxi awlu sire yi rañane giñ rañaane yonent bi weeru rajab la waxona len ne ca ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar la wa ci tënk gàttal daal yonent alayhi wasallam dañ ko rañane waxona len ne hit bit rañane ja am na ixtilaaf ndax dañ ne dafa deme jëm ak ruuxu daray jaam bi daal amul lu des lépp a dem waxoon naa leen ni am na it ñu wax ne ruuxu gi rekk lañ rañaane ci tënk gàttal daal yéen salaay salaam rañaane nañ ko waxoon naa leen a dellu leen ci sóoratul isra subhaana alladi bi xabdi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير soo demee foofa moom def ne bi xabdihi bi xabdihi borom xam-xam yi dañ léppay jaam bi moo dem waaye daray jaam bi wàññeeku hut wax naa la soo demee ci yenn ci hadis yoo xam ne saydatuna Aysa moo ko solo dane rooxu gi rekk moo dem waaye jëmm ji demut su ko defee borom xam-xam yu bari dañoo jama hadis boobu ndax dañuy wax ne saydatuna Aysa yonent bi ba mooy rañaani boobu saydatuna Aysa yonent bi takk na ko waaye dégg nga de bi joxaguñ ko Aysa ndax saydatuna Xadijatu ba mu génnee àddina ci li yonent salaay salaam takk soxna si ñuy wax xaysatu am na ñu ne xaysatu mooy ñaareelam am na ñu ne déedéet sawdatu mooy ñaareelam loolu it ahlu siira dëppoo wuñ ci waaye ci tënk gàttal daal xat mi takk xaysatu xat moom ci la takk sawdatu ma wax la rek ne la riwaay xaysatu googu bari nañu ko jam la waral ñu jam ko dinaa am lu ma la ci leeralal ndax xaysatu dañuy wax ne dafa laaj yonent bi ne ko sa léppaa dem yonent bi ne ko ruuxu gi rek laa rañaane am na ñu ne lim jigéen moo tax waxutoo ne ko sama léppaa dem waaye xaysatu laata ñu koy jébbal yonent bi boobu fekk na yonent bi rañaani ndax yonent bi ci fukki atam ak ñaar ci nubuwa soko boole atam yëpp mu jox la juróom fukki at ak ñaar ci la ko yàlla rañaane waaye ba mooy takk xaysa dégg nga de boobu fukki at la am ci nu gi soo ko boolee mu jox la juróom fukki at waaye boobu xaysa juróom benn at la am ci dundam ndax xaysa juróom ñeenti atam ci lañ ko jébbal yonente bi dégg de juróom ñeenti atam soo ko xoolee ak juróom benn atam kon ñetti at moo tegee ci juróom benn ya mu jox la bi maanaa juróom-ñeenti atam kon xaysa jébbalam mu ngi xamee ca madinatu mu nawara waaye takkam mu ngi xamee ca màkkatu mu karama wax nañ ne yonente bi laata muy rañaani boobu dégg nga de jébbalu guñ ko xaysa gannaaw ba nga xam ne na ba xam ñetti xatam dégg nga de ci ni mu rañaane ci lañ ko soog a jébbal xaysa moo tax nag wax ji bëri moom it mu wëlbati ko waxay sa ne ko man daal ruuxu gi rek moo demoon ci wax ñenn ñi am na ñu ne déedéet ay sama waxee noonu rek waaye yonent bi waxtaanu ci moom su ko defee tënk ak gàttal daal mooy yonent bi demee na bi habdi yii liñ jàpp mu fasir yëpp li xëpp ñoom loolu lañ wax suñ tabib bi nga xam ne moo daan tafsir di Mawlana Cheikh Sidi Hadj Oumy Ali nga xam ne mu fasir la dégg de sakki la. ku xamna ku xamé la mom day lim wax moya ah, dana dan tafsir ci bi tafsiram ne borom tafsir li lañ wax man sidi alajo ndaw li la wax mom de nee na sallallahu alayhi wasallam lepp la démé kon su ko défé ci teunk gàttal rek may yaatal ci waya nañ ko fofu ci bobu nga xamné ne hadis bi indi na ma continuer wax la lan mo sabab rañaan ak yoonte bi yàlla rañaanee ko ba mu dem ci asamaawu jaar ci place yee ca nekk dem ba fa neex yàlla mu gisanteeg yàlla la yonent bi gis na yàlla Seydi Alaaji Omar moo ñu ko wax xasastahaa rabbi bil muxtaari safatina ñu ne ko kañ ko gis mu ne laylatu kon nag képp koo xam ne wax nga ne yonent bi gisul yàlla ñun duñu ci ndax képp koo xamante ni xam na gënt a xam Ndaw lan mooy xayb te moom nee na yonent salaam gis na yàlla subhanahu wa kon su ko defee ma wax la lan mooy sababu rañaan ak yonent bi gannaaw ba ma la waxee weer waa nga xam ne lañ koo rañaanee ak ixtilaaf bi ci am ci weeru juddóom ga la wala weeru rajab la ma wax la it dégg nga de yonent salaay salaam ñii dañ ne jëmm la demee ñii ne demee ma wax la yonent bi ñaata rañaan lañ ko rañaanee yonent bi alayhi salaatu wasalaam rañaan na ranyan rañaan ak ñet te lolu israel manam la rañan ak nelaw la rañan go xamne dafa teud di nelaw ñu yobbu ko won ko ay bërepp ci mbax ak yalla ñu xamal ko ay xam-xam lolu def na ko fanweeri yoon ak ñet muy fanweri rañan ak ñet rañan yo xamne rañan ak nelaw la waye rañaan na rañaan go xam ne ya la dafa deme jëm deme rohu waye nak sëriñ bi ñuy wax suqran borom xam-xam bu mag la ci sira neena na yéen salaay salaam rañaan gi nga xamne la deme jëm deme ko rohu ci leen ko joxe waxtu yu juroom waya gannaaw rañaan gogu rañaan na moom yéen salaay fan wéri rañaan ak ñett yo xamne bi rohu yi rek la rohu gi rek mo dem way jëm ci dem ma wax la nag li sabab rañaanu yonente bi dafa am benn waay bi ñuy wax Ousmane bun Hassan Aljabariyu wax naa la na la nee na moom li sabab Isra wal Mi'raj loolu Sidi El Hadj Malick ko tënk ci benn bahit comme na ma la ko waxee woon kero ndax waxam yëpp mu la wax naa leen na leen tabaa laraati wa sama ubbi ahmadin li xatwin wala sin wa jami al manasili loolu yóbbaale la rañaan gi yëpp fu rañaan gi tàmbalee ak fa rañaan nga yam si dalaaj wandaw mu ko tënk ci benn bayit soo demee ci buntu baatinu am na lu mu fa junj soo demee ci wàqatu saada am na lu mu fa junj soo demee ci loolu makku noonu ca calla am na lu si dalaaj wandaw junj waaye ci tënk gàttal lépp daal ci rañaan gi tënk na ko ci benn bayit muy tabaalaraat yi googu nga xam ne nekk na ci yawaaqitu sahaada Xasan moomu Ousmane bun Xasan moom daf ne li sabab rañaan gi Isra wal Mixraaj suuf ci boppam moo doon puuguriw ci kaw asamaaw wa qaalat ana afdalu minki li anna laha sayatni bilaadi wal bihaari wa anhaar wa asjaar wa bihaar wa xayriha suuf daal moo puuguriw ci asamaaw naka asamaaw yow de maa la gën na yalla taral na sama kaw ay dekk taral ci ay doj taral sama kaw ay geej taral sama kaw ay yolnge taral sama kaw ay garab dégg de ak yenen yuma ma asama wi dal di tontu suuf ne ko de yawit mala gën su ko asama wu dal di wax lottu na ci tontu suuf wu jublu ci yalla di joy Yalla nak deng de daldi wax yu bi mana sayidina jibril moyo ko nako demal aljana bo fa demee da nga fekk ay albura nga jàpp ma ci albura yi ben nga war ko nga dem màkkatul mukarama da nga fekk yonent bi fim teud nga nak mom dem baytul maqdis comme yoni num deme inshallah dañ ci ñew su ko wax yu na jibril jibril dem na fan la ko wax mu dem demal aljana jibril dem na aljana fekk na fa ñeen fukki junne ci albura jibril fekk na albura yooyu ñu ngi wër ci toolu dëru aljana yi di for di lekkatu waaye albura yooyu seen jëye bépp albura rek jibril nee na albura bu ne rek jëfam ba ñu ngi ci def ismu muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn jë bu ne ca tamponge bind ci seydina muhammad alayhi salaam jibril nee mu ñuy gis benn albura boo xam ne dafa bereeku bokkut ak ñeent fukki junne albura yi nga xam ne ñu ngay wër ci toolu doomu aljana yi di lekk mu ngi gis yooyu yooya ñeent fukki albura dégg nga de ñu ngi wër di lekk mu ngi gis benn boo xam dafa bereeku dal di nee na albura boobu mu ngi njëtt doxam gi commencé moom it di jooy jibril ne na man laaj ko looy jooy albura boobu dal di tontu jibril ne ko man de dama dégg benn tur woo xam ne dama ko bëgg mu tàbbi sama xol boobu ba léegi ba ma ko déggee ba ma yàlla bindee ñeent fukki junne xat maa ngi dégg tur boobu mu tàbbi sama xol man taluma lekk taluma naan taluma dara lu dama bëgg gis jëmmo jooju nekk jëmmo jooju ma xayru waraa jibril na ko kon xaaral ma yóbbu la alburaa boobu jibril nee na ba mu ñëwee fekk ko mu ñett dox xam gi moom alburaa def na jibril gannaaw ba ko jibril laajee lan la lu tax nga béré ko te lekkoo mu ko sama xol dafa am turu ci tabbi keroog ba ci tabbi haaju ma lek haaju ma nan dama ko bëgg gis jibril nak nako ko kan la mu ko yoonte bi turu dal moy sallallahu alaihi wasallam muhammad la tuddu jibril ne ko de la boromam soxla daf ko ho li ñewa audience kon nak yalla suñu borom mo mu ñew fi jël ci al jël ci alburaay war leen jël ci ben war ko dem màkkatu mukarrama kon xañ yow ya ko nañ xamna ma jotale la ci ka nga sopp jibril ngay wajal albura mu ngi koy waajal ci tek mu ngi koy waajal ci lab mu ngi koy waajal ci jumtuwaay yi ñu ko wara waré ñu tek fo suñu baram incha ba bisu altina ñu and ak yeen ci rañanu yonente bi dellul ci yawaqiru shahada alaaji ne wax nañu tabaa pugurante na di suuf wa samaa ak asmaa ñu ngi xuloo wante ki naan ko mala gën ki naan mala gën ci kan lañu pu pugurante sayyid alaaji ne bi ahmad ci bi wasallam asamaawu suuf mu ngi naagu ci li lax sin ci jeego bi nga xam ne la yonent bi di jeegoo waaye asamaa mu noo am ko wa lax sin ci génnee ko yéen koy génnee ko wa jamee manasili ci mboolem barab ya nekk ci kaw kon nag bayit boobu tënkal nañu rañaan gi ñoo ànd ak yéen ci xis rañaan gi incha allah ñu teg foofu suñu baaraam ba beneen altine ma wax leen jibril ni mu jëlee albura boobu fas yéene war koo dem màkkatul mukarama fan la jibril fekk yonent bi ak ba mu ko yeeyee ak dégg la ko alburaa tontu laata yonent bi di war ci kawam incha allahu rabbi ñu ngi baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq di sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ñu jàmm ñu ngi leen di ñaanal jàmm di wax na lu jub ci yàlla la lu jubati ci ñàkk fasaaw jàmm bi leen wax la ak gàtta xam-xam wa assalaamu aleykum